ci dinañ ci gën a ñëw laaj bu mujj bi rek xat yi mooy euh, sànq dafa ne président Macky Sall day day day xuppaate day jaay doole waaye ñoom yéen i daam yéen a ngi xuppaate parce que manifestation bu mujj bi euh, dama la dégg nga ne président Macky Sall su bëggee yeggali mandaawam na bàyyi coalition yi bokk ci élection législative yi loolu xuppaate la te it ci anam bi nga xamante ni nii yéen yéen a juum ci seen liste yéen tamit da nag daam loolu neex naa neex naa défendre d'abord nee naa la sànq juum bin juum loi bi moo ne la mën nga ko rectifier xam nga man man weddiwu mën a ñoo juum de mhm. nee la sànq mhm. yeewi askan wi moo dem ñu ne ko kaay remplacer koo xam se amul ñaar fukki at ak mais est-ce que du contradictoire sa nga nangu ko ba pare ne président ma ko teg ne ma bàyyul ma dem ci élection du eggali mandat non non Mohamed il faut ñu dégloonte waaw c'est-à-dire dama man dara jaralu ma wax loo xam gëwuma ko mhm. yeewi askan wi muy liste Dakar comme muy euh, liste euh, nationale erreur yi ci am moom moo ko def moom moo juum loolu mooy dëgg mais loi bi dani juum yooyu mu def loi permettre na ko mu rectifier ko loolu nañ ma wax benn juriste bu taxaw parce que man am na ay juristes yoo xam ne quand même jàpp naa ne sax dañoo man nekk ci par parloo par parloo mais am na ay juristes yoo xam ne yow mën nga gëm lu mat cent de juristes ay professeurs d'université dans plusieurs universités du pays nga xam ne ñoom ñoo ŋànk doctrine bi nga xam ne lu ñu la wax ci xam-xam lañ koy teg mais ñoom ñëpp ñu dajaloo ci seen lël génn seen i résolution gis ne liñ li xew nii ci conseil constitutionnel li mu décidé nii ñu ne dana nërmeelal li ñuy jàngale ci université yi c'est-à-dire que li ñuy jàngale wërta wuute ak li conseil constitutionnel di décidé ak li seen i juridiction di décidé parce que xamul tax parce que bu ñu demee ba réew mi droit bi ñu koy foowe institution yi di foowe droit bi di xool intérêt ab candidat wala ab président de la république ba jël ay décision yoo xam ëllëg dina am jeexital boo xam ne parce que réew bu amul yoon du dem suñu justice bi li fi xew ci jamonoy président Macky Sall nii dinañu topp topp suñuy sët léegi am na sax ku ne ma est-ce que bu lii lépp jàllee ba Macky Sall abal ñu du ñu toogaat effacé waat lépp li nga xam moom lañ fi defoon ne léegi lii lépp mënatul nekk jurisprudence parce que ay tappale la woon ma ne ko ah da du yomba def parce que ju jugement bu ñu def décision bu ñu def day impacter l'avenir du pays waa léegi nag loolu mooy jafe-jafe bi ñu nekk Mohamed c'est-à-dire que erreur yi Yewwi Askan Wi def d'accord am na mais la loi permet à Yewwi Askan Wi de corriger les erreurs léegi nag ñoom ñun leen du ngeen ko fi corriger loolu mooy problème bi moo tax ñoom ñoo tooñ ku la mën a wax leneen lu dul lii day parparloo waaye ñoom ñoo tooñ. poste bu Sonko à peine quelques minutes boo xam ne def na ko pour dire aux jeunes yi nga xam ne dañu waroon dem ci këram ñenn ñi déjà ñi ngi fa mu wax leen ne ñibbi leen seeni ay kër euh, ñenn ñi nga xam ne ñu ngi doon waaj pour ñëw mu ne leen bu leen yegg si ndax suba ak kayitu di dara du am. Euh, lan la ñu mën a comprendre peut-être mën nga bañ a xam ay géntam ak lan la bëgg a wax foofu mais bu ñu déggee ne yeewi askan wi euh, ku mel ne son ko def na poste boobu en plus de cela yeewi askan wi di woote une conférence de presse à 11 est-ce que loolu dafay wundu ne euh, da ngeen di sursoir ci loolu nga xamante ne mu may manifestation suba bi. waaw loolu daal la ma ci mën a wax mooy depuis ci suba ak léegi ñun leader yëpp ñu ngi jot ay coup de ay kilifa parce man am na kilifa yoo xam ne du leen tudd. mais su ma leen tuddee ñëpp xam leen ñu am ay responsabilité ci réew mi euh, ñan ñi sàkku sax vraiment ma euh, yombalal seen jot ci leader yenn yi ñi nga xam ne ku ci mel ni Ousmane Sonko ak xalifa ak euh, vraiment ñunu cité ñenn ñi ku nekk wax ñi ñu xalaat ne buñ sañoon ñu toog ak ñoom ñoo xam ne sax jël nañ ay initiative di def ay démarches pour wax ni dañu bëgg suba ñu bañ a def manifestation bi pour des raisons diverses parce que am na ñoo xam ni raison yi ñu joxe mooy euh, suba bu ñu defee manifestation bi euh, xare jàmbur yi ci mbedd mi gars yi daan ko jël. loolu am na ay euh, kilifa yu ma ko wax ne ma ay nit dem leb seen xaalis dem ci banque yi ñu lebal leen ay millions ñu dem jënd ci ay xar yu cher mu ma xari ndakaar yi ma seen suñu xeexee ci mbedd mi bu jaxasoo rek xari jàmbur yi dina dem te boobaa dañ leen ci mere. ñenn ñi loolu la ñu wax ñi des tamit invoqué li Mohamed doon wax sànq mooy euh, école yi euh, ak examen yi nga xam ne moom moo moom moo door yooyu raison am na ñu ko joxe ba def ay démarches man xam naa ñoo xam ne dem nañ dem nañ dem nañ euh, rencontrer certains leaders de Yewwi Askan Wi man j'ai reçu énormément de coups de fil ay kilifa diine ak ñoo xam ne ay kilifa aada ñoo xam ne xam nañ ñu ni yéen ci ñi fës ngeen bokk ci mbir mi suñu sañoon ñu ñaan leen ngeen teg lii ba tabaski bi jàll lu ngeen mën a def ngeen doog koy def mais instant bi contexte bi chargé na te bisu suba bi ku ne xas na te bu ku ne xasee musiba nar naa am ci réew mi suñ sañoon ñun duñ seetaan loolu xëy na loolu moo commencé def ses fruits mënaguma wax ne dafa aboutir mais euh, loolu moom mun naa la ko jox comme information boo xam ne am na depuis depuis en tout cas hier depuis hier man euh, je reçois des coups de fil et je sais de la même façon tous les autres leaders de ñu ngi jot ay pour ñoo xam dañoo dañuy offrir seen médiation ay kilifa yu mag yoo xam ne bëgguma leen tudd parce que am na ci kenn koo xam ne peut-être mën naa ko tudd parce que moom bokk na ci yeneen kilifa comme moom mooy euh, muy Ababacar Mbow bu ànd sàmm jikko yi ñu ngi ciy dox ay jàmm pour wax ne ñoom li ñu gëm mooy ñu dem ci confrontation ñu yàq alalu nit ñi ci contexte tabaski bi ak vraiment ay nit deewaat ci ci contexte boo xam ne c'est très chargé loolu gënul kon jàpp naa ne peut-être euh, loolu mun na nekk une raison bu tax moom mu bëgg a décrisper parce que tamit ñun duñ ay nitu fitna ñun bëgguñu yàq dëkk bi dañoo am droit manifester ñu xañ ñu ko loolu moo indi fitna bi mais suñu bàyyee ñu manifester dara du xew ñun jël jël nañ garantie boobu xam nga moo tax may wax ni sénégalais nañ àtt ci dëgg ñun jël nañ engagement que suñ ñu bàyyee ñu manifester dara du xew te loolu wane nañ ko parce que dañoo dem la huit manifester naam am na kàddu yu fa jóg yu neexul ñenn ñi loolu ma am na ma je le reconnais am nay kàddu yu fa jub jib yoo xam ni am na ñoo xam neexu leen mais euh, loolu c'est un autre débat parce que nit koo xam si def nga loo wër te def euh, man damay wax toujours ni yow yaa ci yaa ciy xeebu rek mais man li ma gëm daal mooy boo jëlee la fa xew li ca ëpp amul lenn lu ca sénégal yi ngaañ dañoo def suñuy déclaration vraiment ful bu rëy ñëw fa parce que man yàgg naa dem place de l'obélisque mais nit ñu toll noonu li mu nit ju toll noonu ci place de l'obélisque man mosuma ko fekkee. alors Dame yaa ngi wax ne dara xewu fa ci boobu manifestation la ñu dégg euh, après quelque jour le procureur de la République muy def conférence de presse un présumé rebelle boo xamante ne dañu ko arrêté euh, tantôt mu ne day jënd xar tantôt mu ne dafay jënd ay dàll mais ci manifestation coalition Yewwi Askan Wi la doon dem ñu teg ci ay manifestation bi ngeen doon def ñu arrêté ci ñoo xamante ne dañ leen dippee force spéciale naam am na ñoo xam ne bàyyi nañ leen mais am na ba tey ñoo xam ne ñu ngi ci des ñoo xam ne lu ñeel wàllu ko courant yeeg li nga xam ne mooy centrale yi ñoom la ñu wax ne moom la ñu bëggoon def bombe explosive loolu également fan nga koy teg bu fekkee génnee nga ci fitna ci tuuma yooyu nga xamante ne dafay tukkee ci procureur de la république teg ko euh, peut-être ci coalition Yewwi Askan wala mu jottu ne ñooñu doon def dañu laale ak yéen wala ci yéen lañ doon jëm si waaw ma ne conférence de presse boobu bi ma ko seetaanee dama moom gàcce parce que procureur de la république moom ci boppam boo ko xoolee da ngay gis ni ci expression vraiment corporelle am maanaam ci jëmmam parce que nit buy wax moom kàllaamaam day jóg mais jëmmam day wax moom boo ko seetaanee moom procureur bi da ngay xam moom muy wax sa nekkul à l'aise moom procureur bi ñu bëri nañ seetaanaat procureur bi conférence de presse am boobu non non non non non non moo tax moo tax ma ni moo tax ma ni moo tax ma ni na ko nit ñi na dem nit nañ dem xoolaat rek conférence de presse procureur bi am na ñu ne ma non non est-ce que du c'est c'est parce que c'était sa grande première que moo tax mu demee noonu mais man li ma gëm du loolu procureur bi li mu doon wax moom boobu gëm ko xam nga dara soo koy wax yow sa bopp da nga koo yow yaa koy war a njëkk a gëm bala koo ña lay déglu di gëm mais moom procureur bi li mu wax moom boobu xam na ni jubul parce que bu ne d'abord ci première tappale bi ci am mooy tudde ko Ousmane Kabiline Diatta alors que moom tuddul noonu <laughs> xam nga man des fois dañuy dañuy dañoo def ni nit ñi ay dof lañ ay mbokkam dañoo def conférence de presse waa ñun <laughs> Ousmane Kabiline Diatta bi génne mooy kan ñun xamuñu Ousmane Kabiline Diatta ñun Ousmane Diatta lañu xam mais c'est c'est-à-dire et puis même loolu stigmatisation ba ci am xamalan la may nit ki su fekkente ni dafa dëkk ci ab dëkk man par exemple Juné ak kiir Diom ñu léegi daam Kire Diom Mbodj waa léegi lu ci andi kiir Diom ja léegi du ñu respecté nit ñi léegi loola lañ ci bëggoon a jublu mooy jéem koo présente comme quelqu'un boo xam si force force nit ñi parce que soo nee Ousmane Diatta rek c'est pas évident Casamance dëkk mais stigmatisation région daf ci am cest à jël ab dëkk boo xam ne même bu fekkee fa dëkk nga yoon dolli ko ci turam te ci état civil am loolu nekku ci te procureur du caaxaan procureur amoo droit di soppi état civil nit loolu d'abord mooy première tappale bi am ci conférence de presse boobu donc daan ne Ousmane Kabiline Diatta présenté ko comme quelqu'un de dangereux daan il est dangereux mais même bu dee nit ku dangereux la benn nit mën naa ñoo jaxase Ndakaaru ak ko xam suñuy force de défense et de sécurité ba mu neex leen ñu ni non non am na ñeneen ñu mu àndaloon waaye dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo tasaaroo ci biir Ndakaaru xoolal ma waxu tappale yooyu benn policier ni mais Dame Mbodj loolu sunu xas la mu ma ñun moom mu mën a ñëw ñu mën ko traqué mu ñëw Dakar nekk ki mu jàgg ñoo ne tasaaroo te ñun mënuñu leen a jàpp mu ma loolu nag wax dëgg yàlla ñun duñ ay dof ma ne ko ñun ñu koy waxit ñun ñu koy waxit gëmuñu ko mais moom ci moom gëmu ko moom procureur bi ñu ne daa déparé Sindian ñu koy xool à travers le net parce que c'est possible avec avec la Sonatel de traquer quelqu'un mais avec son téléphone nee na ñu koy séen muy dem ba Kaolack moom procureur bay wax de nee na ñu koy séen muy dem ba Kaolack ba mu jàgg ñu koy séenaan muy dem ba Mbuur après mu ñëwaat ba Dakar léegi nag moom il est dangereux moo tax jàpp ko ñu xoolu mu wax jooju alors ko kooku ay mbokkam nee nañ moom loolu da ko da koy da koy def ñëw Dakar nekk euh, mbokkam moo xam dañ doon dem euh, euh, dépôt Dakar dem dikk biñ demee ba foofu lañ ko woo ko ñëwul mu ñëwoon jàpp ko moom xamul saxlu xew mu ñëw xamul woon sax li manifestation am na dakaar ñuy jéem a dox ci xelu nit ñi pour jéem a nit ñi ni Yewwi Askan ñoo ko fi indi alors que moom nee na xamul woon sax nee na bi ñu ko laajee moom mu génnee di jëm Dakar dem dik mi ngi naan mais policiers yi yéeg euh, euh, charré ci mbedd mi lu ko waral mais ñu ne ko mais daa am manifestation bi am na mu ah parce que fii dafa bëri ay policiers tey ci seen ci mbedd na manifestation bu am ci zone boobu donc ñuy jéem a nit ñi di jéem a stigmatiser une région loolu aussi dama ko dénoncer avec la dernière énergie maanaam di jéem a présenter nit ñi comme ku jógee Casamance ab rebelle nga loolu affaire yabaate la man Casamance dama faa liggéey juróom-benni at man sama première poste c' était au lycée Aline Sitoé Diatta du Souy sama néeg comme ni ma ko waxee Sénégal yëpp partagé ko loolu moo am dama daan toog ñetti weer Ndakaar du ma tëj sama néeg te dara du romb ci bunt bi bu ma ñëwee damay ubbi xëcc mu ubbeeku te dama fa daan bàyyi lu sama néeg sama moroomi jàngalekat dee fa nekkoon tamit di def la même chose donc Casamance bi ñuy jéem a stigmatiser la ñu war a arrêté que ku dëkk Casamance tu es un rebelle loolu la ñu war a arrêté te man xam naa liñ ci jublu lu leer sénégalais xam nañ ko mooy di jéem a lawal affaire bi jëmale ci Ousmane Sonko parce que Ousmane rek la ragal beneen bi mooy les forces spéciales forces spéciales yi tamit ay cocktail molotov mais ñun bi ñu nekk étudiant ñaata cocktail laa defar man dambu ñun ñu taxaw fii ñun bi ñu nekk étudiant ñu xam nañ ni ñu koy defaree bi ñu nekk élève ba bi ñu nekk eh, fii école normale supérieure nekk ay jàngalekat di xeex pour le recrutement de nos anciens mais dañ doon taxaw di defar seen cocktail molotov non non no non Fat Abdou il ne faut pas ñu bëgg a présenter ay jeunes yu taxaw defar ay cocktail molotov comme des terroristes terme bi moo rëy Fat Abdou mais il faut pas aussi minimiser sa que ne yow defoon nga ko bi ngay def bi ngay jàng étudiant nga ci situation bu tond bi nga xam ne Sénégal ci la nekk aussi daam dama man bi may nekk étudiant defar naa ba taay cocktail molotov mën naa ko defar man loolu taxul nga nekk terroriste non dama la dama la bëggoon ne la ñooñu liñ leen bëgg a naan defar nañ ay cocktail molotov dañoo naroon dem taal dëkk bi loolu lépp xam nga ñoom leen ci intéressé diaboliser les gens man kenn ci ñoom dama ko xam parce que ñoo jàngandoo mooy ki nga xam ne moom mooy Ousmane Seck moom la ñu wax Pape Ousmane Seck ñoom Ousmane la ñuy wax géewul xam naa Pape Ousmane Seck moo nekk ci kayitu kayitu juddoom mais Ousmane Seck ñoo bokk quartier ma xam papam xam yaayam xam ay rakam c'est le grand frère de Akhenaton c'est vrai Akhenaton Ousseynou Seck bi def ay live am en France ñoom ñaar ñoo ko bàyyi ñoom ñaar Ibra Seck mooy euh, vieux Ibra mooy seen papa ca nguma ngeewul j'ai dit que papa moom ku ko xam xam ne ku dem daaneel jumaay ngumba ngeewul moo ko moo moo toog ni ci gént dafa gis ne dañ ko war a defaraat mu dem daaneel ko parce que entrepreneur la defaraat ko ba mat lu mat fukki yoon ci espace maam Abdou à l'époque moom moo ko demoon inauguré moom bàyyi moom moom xale bi ñuy jéem a jiin terroriste moom xale boobu ñuy jéem moom Ousmane maa moom ñoo bokk âge ñoo doon ñoo doon jàngandoo ak Géoul à l'école 1 de moom Ousmane moom il est loin d'être un terroriste il était en en Italie di liggéey ba mu nekk mu ñëwaat fii Sénégal nekk di def liggéeyam ñu bëgg ko parce que il est de euh, Pastef ñu bëgg ne léegi moom dañ jéem a wut ab lien ak Ousmane Sonko alors que Ousseynou Seck mi ngi boole sax ñoom ñaar ñoo bokk bàyyi mais Ousseynou Seck day attaqué ñëpp même Sonko da koy attaqué man mii di waxee Ousseynou Seck attaqué na ma ne ma Dambo Diaw sama grand frère nga yaa ma yar ca ngu ma ngeew waaye non mais ma rek ma daaneel foofu ne ma mais Dambo d'accord ma ak fekk daa am position bu amoon man Ousseynou am na position yi mi am yoo xam d'accord ma ci man mii attaqué na ma ci position leer na ma man position amoon man xam naa tax ma am ko ca moom ay position la am dama koy nangul même si je ne partage pas toutes ses positions am na nag position yu ma am yu ma d'accord man maintenant Ousseynou moomu nekkul Pastef pourtant il n'a pas la carte de Pastef bokkul Pastef c'est différent de son jeune euh, de son grand frère Ousmane mooy ki am ki maase ak man mais ñu bëgg leen a présenter comme des gens yoo xam ne ils sont violents ils sont des terroristes mais duñ ay terroristes ay sénégalais bon teint lañ comme tout le monde. voilà dañoo am seen i position balaa maa jox sànq yaa ngi wax ne tout ce problème c' la parité et le parrainage est ce que euh, combat bi euh, perdu ren ko euh, bi nga xamee ne vous avez laissé faire maanaam li li tubaab di wax la mort pour les autres. bi mu dalee ay coalition gisuñu le soutien de l' opposition bi nga xam ne tey téye nañu ku ci mel ne gëm sa bopp. ku ci mel ne jàmmi réew mi Modou Diop Decroix toog na fii démb ne moom également loolu la ñu ko téewee entre autres euh, dégguñu kenn ku ci xuloo ku ci kaas ku ci xeex wala ku ci wàcc ci mbedd mi est-ce que du foofu ñàkk déggoo bi opposition bi moom moo indi jafe-jafe bi nga xam ne yéen ñëpp tey yéen a ngi koy dund te ba tey amu leen ci pexe aussi loolu moom damay reconnaître man parce que loolu dama koy wax su ngeen ko bi ñu institué le parrainage c vrai que à ñu bëri xeex nañ ci mais bi mooy bi Macky Sall bunkériser Dakar pour voter loi bi la loi sur le parrainage. 2018 man à l'époque laan leen woon suñu ko seetaanee ba mu voter loi bi ëllëg ñun ñëpp leen toog mere ñu deful dara loolu xeex bañ ca waroon a xeex man gëm naa defuñu ko ci man loolu laa gëm donc à l'époque nit ñi génn nañ mu jàpp quelques leaders coow li jeex ñu pare ci alors que daa ça devait être une résistance permanente xeex bi ñuy xeex ni foofu la woon parce que xamul tax daf ñu jaay doole imposer parrainage. alors que parrainage bi baaxul ñëpp xam nañ ne da koo imposé woon pour mën cee làqatu pour éliminer ay liste c' est la même chose également bi ñu ñëwee ñun par exemple bi mu ko instauré ci euh, ci ci législative yi ñun taxaw nañ xeex ko parce que moom dafa ñëw local ne du am parenage mu ñëw législative ne da koy andiwaat bi mu ko andiwaatee ñun taxawaat nañ xeex ne wërta am na def li defoon ci local yi ca la ñu yóbboo ci àll bi man ak ñoom Guy Marius dem yóbbu ñu largué ñu à ci àll bi ay minuit loolu la ñu Macky Sall même xool xoolama boobu xeetu jaay doole maanaam jàpp jàpp ni <laughs> mais c'est vrai jaay mais man ci àllu mbaa bi lañ ma wàcce Guy Marius Sagna côté côté côté euh, romb na romb na jam ñaajo mais mais ci jaay doole rek cest à <laughs> parce que ñun dañoo ñëw ñu manifester mais ay ay minuit maanaam ñun dañoo manifester yow imagine nga Mohamed waaye ñun bu nu fa ay gaynde rayoon lu muy wax moom Macky Sall waaw mais mais mais booba man ma xoolal gis nga te booba ma man man bi may dem heureusement maa ngi woon a paas mais et puis bi du leen wàcceendoo en groupe de day jël ay fourgonnette policier mais sénégalais ñi nga seetaan Macky Sall muy def lu ko neex jaay doole c'est-à-dire di ci reetaan quoi c'est-à-dire est-ce am lu def dafa dafa rangale ay fourgonnette policier dugal ñu ci ay fourgonnette policier la jël rangale ko xoolal waaw non dama lay expliquer rek xoolal xoolal xoolal jaay doole boobu rangale ay fourgon policier di yóbbu di largué et puis buy large du largué par ñaar de par benn lay largué comme comme ay para ay ay para ay wàcc cest day largué par benn cest man biñ ma wàccee man man biñ ma wàccee dawaat na lu mat ay ba gisatuma oto bi mu doog wàcce keneen ci àll mbaaw bi bu di continuer di wàcce ba mu jeex mu jël beneen oto wàccee wàcceete fu ko neex am jigéen ñoo xam dana yóbbu ca côté euh, filawoo ya waay ci heure yooyu bu ñu leen fa violé woon nag non c'est-à-dire gis nga actuellement euh, li Macky Sall jaay dooleem bi mu nekk te sénégalais yi di ko ñàkkal fayda nii te nee naa leen kenn mucc ci gis nga fi mu doon ne mi ngi commencé par des leaders gis nga Macky Sall bis bu demee ba nopp leaders yëpp ba ñëpp ni cocc ci benn ruq man nag jàpp naa ni xanaa dañuy tëral rek ñun ñëpp tëral ñu rey ñu waaye tant que ñu ngi des suñu bakkan Macky Sall duñ ko bàyyi mu jaay doole ci réew m di kon na def lu ko neex kon nag li nga xam ne moom moo am mooy réew mi jaay doole doo fi nekk leneen nekku fi ñun li ñuy def ci dëgg lañ ko teg defuñu lenn lu dul ba euh, taxawut pour suñu réew di défendre suñu réew taxaw ak président de la république boo xam ne moom mënta souffrir contradiction mënul nangu nit taxaw ni ko d'accorduma ak yow kon ñun parrainage bi taxaw nañ xeex ci li ñu mën maintenant nag effectivement euh, loolu moo andi biñ demee ba éliminer ay euh, ay ay ay ay coalition yi waroon bokk comme gëm sa bopp comme vraiment jàmm réew mi parce que Macky Sall gis nga Macky lépp lu mu def daf ko calculer euh, Macky Sall xam na ne bu éclatement bi méttee baaxul ci moom day am da li dal Macron en France moo koy dal il le sait Macky Sall il sait actuellement day woo ñëpp pour ñu waxtaan pour xool ba gouvernement bi ñan ñoo ciy dugg ak ñan ñoo dul dugg premier ministre parce que Macky Sall am na noom li mu député li daal Macron bu élection yi jaaree yoon lu ko gën a metti moo koy dal xam nga Macron dem na élection moom wóor na ko ne fi mu toll nii mënatu ci dara amul majorité il faut mu waxtaan ak euh, euh, waa NUP yi il faut mu waxtaan ak euh, waa Front National il faut mu waxtaan ak ñëpp déet il les a reçus parce que amul amul amul pexe Macky Sall nag loolu lay daw loolu pour sénégalais yi xam lu tax Macky Sall di def jaay dooleem bii ci dëkk bi parce que élection yi su jaaree yoon mu bàyyi nit ñi ñu dem correctement moom Macky Sall moo la gën a xam ne mënta am majorité léegi nag bu amul majorité loi scélérate yi mu bëgg a yi mu bëgg a voté ci réew mi du ko mën a voté parce que Macky Sall est capable amul sax capable loolu la bëgg te maa ngi koy wax sénégalais yi c'est pas pour faire de la propagande mais gis nga Macky Sall bu amee majorité à l'Assemblée nationale il va enlever la limitation des mandats loolu bëgg parce que euh, euh, wane na couleur yi quand les ministres des affaires étrangères se sont rencontrés à Accra réew yëpp d'accord ni dañuy signer la limitation des mandats ñu ne léegi la aye waat aye ñetteelu yoon ñëpp d'accord cee signer ba mu des ñetti réew ñu limaa la ci Sénégal ñu ne Sénégal rek moo d'accord ak Côte d'Ivoire ak Togo lii gàcce la Mohamed sunu réew ñun Sénégal nga xam ñun ñoo doon vitrine de la démocratie en Afrique ñu taxaw ba ñun Afrique ñuy taxaw di wax dañuy limiter limiter les mandats Macky Sall ministre des affaires étrangères boo demee bul bokk ca ña koy signé sa veut dire que kuy ku doon sikki sàkk ndax Macky Sall la ngay waajal def ñetteelu mandat mën naa leen jox d'autres exemples yoo xam mooy wane ni Macky Sall mi ngi mi ngi teg